asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuy naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñépp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sun bopp euh, mu mel ni am na mbokk mi ñu doon laaj njëriñ yi ñu xam ci xobi limon xob yi garabu limon waaw laaj bu am solo la limon garab gu am njëriñ la ci boppam moom limon te defe naa yàgg nañ ci wax waaw waaye xob yit day faj waaw xob yi garabu limon waaw xam nga xeetu ferñeent yu ne danga ko ca fekk comme nañ koy fekkee ci doomu limon waaye ñett yi ñoo ci ëpp solo li ñuy tuddee vitamine C li ñuy tuddee acide citrique ak yooyu ñu tuddee antioxydant ñett yi rek ñoo ko jox njëriñ yi ca nekk dëggantaan moom xobi limon moo tax day faj waaw xobi limon kon day faj dafay aareet ci yenn xeetu jàngoro li ci jiitu mooy li mbokk mi doon laaj démb xaw ma barki démb mooy wàllu insomnie mooy ki amee jafe-jafe nelaw xam ne boo tëddee doo nelaw kooku xobi limon mën na ci dara waaw insomnie ñàkk nelaw ak wàllu li ñuy tuddee cholestérol cholestérol bu bon bi bu bëree ci yaram boo jëfandikoo xobi limon mën na la ko dindil ba ci wàllu asma digle nañ ko ci moom xobi limon waaw yooyu ñu tuddee antioxydant yi ci nekk moo tax moom mën na dara ci yenn xeetu cancer yi moom xobi limon waaw ci wàllu traitement waaye ci aar la ci ak angine ak tawut yu bari yi jàpp put waaw ak ki nga xam ne su lekkee lim lekk day yéex a rees <coughs> kooku diggal nañ ko xobi limo ku amee problème mu digestion problème mu reesal ah di amee li ñuy tuddee ballonnement waaw wala problème mu transit transit mooy eh, sooy lekk yoon wi ñam wi jaar ba keroog muy rees waaw xobi limo day day yombal yoon wi day tax. Eh, du am benn gàllankoor ba ci wàllu rhumatisme digle nañ ci xobi limon ah, waaye dafay ras biir dindi yi ñu tuddee toxin mooy mbalitu yaram yi bu dee yaa ngi koy jëfandikoo ba ci tawati estomac yi digle nañ ko ci ah, ba ci ñi amee yaram digle nañ ci xobi limon waaye bu dee yaa ngi koy jëfandikoo it dafay tax sa deret sa deret ji di daw ji daw ni mu war a dawee ci yaram bi deret ji bañ a way moo tax xobi li moom baax na ci tension bu yéeg soo koy jël mën na laa aar ci tawat wi ñu tuddee ABC moom xobi limon ñi nga xam ne dañoo amul appétit tiimee lekk duñ ci mën lu bari eh, ñoom it dig dig leen digal nañ leen ko ba ci wàllu li ñuy tuddee arthrose tawat yi ñu tuddee arthrose bokk na ci yi nga xam ne eh, mën na koo faj mooy mooy mooy xobi limon waaw ba ci wàllu grip ak soj waaw ñoom ñëpp digle nañ ko ci waaw waaw grippe tawat estomac yi ba ci jigéen ci gis mbaax mu mel ni lu ko xawa a lool ndax ay mettit metti lool ba sonal ko kooku xobi li moo jàmbar la ci waaw mettitu règle ngay gis mbaax rek mu la lool waaw ba ci tawat yi wàllante yu bari ci wàllu sëy rek waaw man bi gaa di tuddee fii choppis waaw kooku xobi limon garab la ci waaw am na bi ñuy tuddee sifilis xobi limon garab la ci wàllu saqat digle nañ ko ci moom xobi limon wàllu saqat waaw eh, balaa muy sori jigéen ji gis mbaax muy muy metti ba sonal ko kooku li ci gën a gaaw nga boole ko xobi xobi xobi xobi daqaar xobi limon ngay boole xobi daqaar xobu daqaar ngëbu loxo juróom-ñaari xobi limo nga baxal ndox sotti ci lu doy ni liitaru ndox di ko naan par ñetti yoon ci bës bi waaw baax na ci na ci tàngaay yaram baax na ci grippe defe wax nañ ko rhumatisme tawat yi jàpp rein yi moom xobi limo tawat yi jàpp cër wi cër wi ñu tuddee rein waaw ba ci wàllu siburu digle nañ ko ci waaw waaw ba ci wàllu sibru digle nañ ko ci moom moom moom xobi xobi xobi limon waaw buñ boole xobi mango waaw kooku baax na ci sibru de xobi limon buñ boole xobi mango benn bu ne boo ci amee juróom-ñaari xob nga boole lépp def ci liitaru ndox ak genn wàll bàyyi ko ba mu tàmbalee bax nga teggi Ah, di ko naan par digg kaasu weer suba ak bëccëg ak ngoon baax na ci wàllu siburu waaw xobi limon buñ ko booleek xobi goyaab dañ koy fajee tawat bi ñuy tuddee goitre waaw xobi limon ak xobi goyaab waaw goitre ñi jàngoro jooju dañ leen koy digal waaw moom it juróom-ñaari xobi limon juróomi xobi euh, goyab waa kay ngay boole def ci liitaru ndox mel ni lu koy baxal mu bañ romb juróomi minute waaw bu tàmbalee baax rek nga teggi waaw ki amee jàngoro ji ji ci naan kaas gu yem subaak ngoon kaasu ndikkee kay subaak ngoon waaw kooku mën na ci dara moom xobi limon ak xob goyab waaw euh, siburu nag bu demee ba sonal nit lool lool lool lool ba sonnal ko lool waaw dégle nañ ci xobi limon ak xobi ngéejaan ñu boole leen damay wax yi nga xam ne mën nañu ànd ak xobi limon cof su ndaw rek ci xobi ngéejaan comme que ngéejaan dafa weex mu boole ko juróom-ñaari xobi limon ki amee siburu bi def ko ci liitaru ndox ñu defal ko ci liitaru ndox mel ni lu koy baxal juróomi minute mu tàmbale baax ñu fay mu ci jël kaas suba kaas ngoon mun na ko ci dimbali waaw si si buru waaw waaw waaye ba ci wàllu tuberculose digle nañ ci xobi limon waaw waaw digle nañ ci digle nañ ci xobi limon ak feebar yi nga xam ne dafay feeñ ci deru yaram ay picc ak xeet yooyu am ñum sonal lool bu ko defee jël xobi limon yi xooj ko ci ndox ba mu yàbbi ci ndox mu borom sangoo ko kooku mën na ci dara waaw ak feebaru ngas moom duñ ko xoojalee mu sangu ci waaye ñu defaral ko ci mu naan ci moom xobi limon ba ci li ñuy tuddee sinusite waaw ba ci sinusite yooyu yëpp rek bu dee yaa ngi jëfandikoo xobi limon mën na la koo fajal kon nag gis nga ne moom dong rek bëri na njëriñ waaye am na yeneen jàngoro yi nga xam ne am na yoo ko mën a booleel mu fajal la yu bari moom xobi euh, limon su dee ci yenn tabat yi nga xam ne moom rek da ciy doy danga ciy wut fukki xob def ci sa marmite def ci liitaru ndox wala sa cafetière foo ko mën a tàngalee baax na def ci liitaru ndox taal fa nga koy tàngalee ba mu tàmbalee baax mu bañ romb juróomi minute waaw bu tàmbalee baax rek fayal waaw nga ci jël kaas suba kaas bëccëg kaas ngoon kaasu ndékkeekaay moom xobi limon ci tawat yu bari yi nga xam ne lim naa ko fi noonu lañ koy jëfandikoo waaw incha allah boo ko defee noonu rek jàngoro yooyu nga xam ne mën nañ laa sonal benn bu ne mën na la ko fajal kon nag loolu moo doon tontu li ci xobi limon yooyu daal yenn la yenn la ci ay njëriñam xam naa balaa ma tëj waxtaan wi ma fàttali mbokk yi may déglu man professeur Abbas garab gi nga xam ne yàlla dogal na maa ko liggéey tuddee ko la roquette waaw dama liggéey génn garab tuddee ko la roquette laa roquette nag li ko yëkkati mooy faju wàllu néew doole ci sëy góor gi nga xam ne dafa yëg néew kàttan ci wàllu sëy garab gi garabam la mu yàgg ci ak mu dog laa dal bu mu ci mën a doon rek garab gi sa garab waaye ñi yëg seere fuñ toll ak li ñuy tuddee ballonnement ak yaram wuy metti ak ak garab gi seen garab la kon nag la roquette ñi ko bëgg a am fii ci ndakaaru mun nañ ma woo ci 77 786 65 19 mooy numéro bi pour waa Dakar surtout su dee Touba garab gi dina fa am te ki ñu fa nekkal mooy sëñ Moustapha Diop sëñ Moustapha numéro mooy 76 383 87 34. su dee Kaolack oustaz Alioune Faye moo ñu fa nekkal ci ñu soxla garab gi moom lañuy woo ci 77 121 79 46 su dee Mbour imam Diène moo ñu fa nekkal imam Mamadou Lamine Diène numéro am 77 636 66 36. ñi soxla garab gi te dëkk Thiès sëñ Pathé moo ñu fa nekkal numéro am 70 564 66 51 su dee ñi dëkkee Louga oustaz Idrissa Wayal moo ñu fa nekkal numéro am 77 504 82 78 waa ndar Baye Diop moo ñu fa nekkal numéro am 77 965 45 84 ñu dëkkee Kaarang ba Gàmbi te soxla ci dañuy woo Baye Idrissa Ndiaye ci 77 611 55 85 kon nag numéro yooyu ku ci woote rek di nga am ci garab gi nga xam ne moom lañ tuddee la roquette. asalaamaaleykum wa rahmatullah